asalaamualeykum wa rahmatullah man la Mamour Ibra Kane njiitu mouvement citoyen demain c'est maintenant mooy wax ak yéen yéen waa Sénégal di leen nuyu di leen ziyaar di leen wax déwénati di leen baal ax di leen baalu ax di wax ak yéen ci kàddu yi nga xamante ni njiitu réew mi président Macky Sall war na ko yëkkati tey ci ngoon altine méngoog ñetti fan ci weeru juillet mu war a yëkkati ay kàddu jëmale ko ci lu ñuy woowee mandat yi mandat yi nga xamante ni président de la république ci Sénégal diir bi ñu la may te mënul weesu ñaari mandat mu war cee yéey yàbbi war cee jindi nit ñu ngi koy wax gor ca wax ja président de la république gor ca wax ja ndax wax ji da ko njëkk bind bind ko ci charte réew mi bind ko ci sa téere nga wax ko fukki yoon téeméeri yoon fii ci Sénégal ak bitim réew nga méngale ko julli korité moo tax yéen kilifa diine yi yéen imaam yi ak ulemaa yéen ñi gëm ndax fii ci senegaal ay nit ñu gëm yàlla lañu yéen laay waxal ci kàddu yooyu ni mu diisee julli ni mu ko respecté ndax suñu boroom moo ñu ko sant te saa yuy julli ñu sellal jaakaarloog suñu boroom njiitu réew mi nañu julli ñaari rakkaat bu njëkk bi juróomi ñaari kàbbar bu mujj bi juróomi kàbbar kàbbaru jóg bi bokk ca maanaam julli koriti bu ñaari rakkaat yi mate imaam bi war a sëlmal bu sëlmalul ñu ne ko subhanallah kon nag yow mii njiitu réew sa kaddu nekk kaddu bu diis kaddu boo xamante ni dañ koo bind ñaari yoon ci charte réew ak ci sa téere sàmmoonte nag sa kaddu gor ca wax ja nga wax sénégalais yi yem ci ñaari ñetteel munul am ngeen tànn seen candidat ci seen parti walla seen coalition mu jaakaarloog yeneen candidat ay sénégalais góor ak jigéen yu gore sénégalais yi tànn ci ay élection yu leer a leer bu soobee yàlla février bii di ñëw mbir mi kat yéen kilifa diine yi kilifa aada yi yéen sénégalais yi góor ak jigéen mag ndaw yéen communauté internationale mbir mii du diggante président Macky Sall ak kujje politique bi déedéet digganteem la askan wi askan wi xam naa ni sax ci biir nguur bi am na ay nit yu gore du ñu nangu ñenn dañu xam valeur kàddu ñuy woowee parole donnée donc nag jàmm réew mi dalu réew mi mi ngi ci sa kàddu mi ngi ci sa ndodd monsieur le président de la république sa monteel sa kàddu menaces yi jaru ko parce que kàddu yi ngay yëkkati teroo bi ngay jaakaarloog maire yu bokk ci sa parti kàddu fitna ba ko baaxul bu amee ku war a sàmm jàmm ak dal yow mii la monsieur le président de la république sàmmonteel ak sa kàddu te menaces yi ñuy teg ci sa kaw nga fël ko fële ndax bu ay nit taxawee ne njiitu réew par la force nga doon candidat boo ko nekkul dañ lay porter plainte loolu lu mu doon lum la jaral nag jaral nañ boo wootee jàmm ñu fekk la ci jàmm boo wootee safaan ñu won la ni Sénégal du demee noonu sàmmoonte nag sa kàddu loolu lañ la laaj jafewu gannaaw loolu teraanga bu nekk mën nga ko am fii ci senegaal ak bitim réew ndax tey ñépp loolu lañuy xaar nga dugg ci histoire par la grande porte ni ñu koy waxe sàmmoonteel ak sa kàddu jàmm ni ñooy asalaamualeykum wa rahmatullah sénégalaises sénégalais amis étrangers amis du Sénégal Mamoud Ibra leader du mouvement citoyen Demain c'est maintenant Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, va s'adresser ce soir à la nation sénégalaise et à la communauté internationale sur une question qui agite le Sénégal depuis des années. Question relative au nombre de mandats impartis au président de la République du Sénégal. Nombre de mandats limité à 2, pas 3, encore moins 4. Ce que nous attendons du président de la République, qui respecte d'abord la Constitution, qui lui interdit de briller une troisième candidature ou un troisième mandat, si vous le voulez. Constitution réformée en mars 2016 par voie référendaire qu'il respecte également la parole donnée. Il l'a dit, redit, ici au Sénégal et à l'étranger. Il l'a écrit dans son livre Le Sénégal au cœur. Si vous me réalisez, nous étions à la veille de la présidentielle 2019, considérez que je ferai un deuxième et dernier mandat. Il a même écrit un second et dernier mandat. Ce que nous lui demandons, c'est de respecter la Constitution. de respecter la parole donnée, sa parole. Trois, de respecter le peuple sénégalais. Il n'y a qu'une parole qui est attendue aujourd'hui du président de la République c'est de dire je ne briguerai pas un troisième mandat parce que la Constitution me l'interdit. Que son parti choisisse son candidat ou sa coalition qui fera face à d'autres candidats d'égale dignité dans un jeu démocratique ouvert, une compétition électorale transparente, calme, libre, démocratique. et que les Sénégalais choisissent en connaissance de cause. La paix dépend de vous, Monsieur le Président de la République. Trêve de menaces, parce que ce n'est pas bon, c'est un jeu dangereux. Nous avons entendu ce que vous avez dit devant les maires que vous avez reçus. Le Sénégal a besoin de paix, le Sénégal a besoin de stabilité. Le risque réputation de notre pays en a pris un sacré coup. Faisons attention. Monsieur le Président, veillez ce soir à entrer dans l'histoire par la grande porte. Toutes les portes vous seront ouvertes à partir de cet instant. Toutes les portes de dignité, de respect, vous seront ouvertes lorsque vous verrez ce soir dans votre message à la nation à entrer dans l'histoire par la grande porte. En quoi faisant En vous limitant aux deux mandats qui vous sont impartis. Parce que vous ne pouvez pas faire plus de deux mandats. Vous ne pouvez pas avoir plus de deux mandats. Vous ne pouvez pas vous présenter à un troisième mandat. La Constitution, la parole donnée, le peuple sénégalais. Merci de votre aimable attention.